jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccu waaye baax a baax di leen tax wax na nag tey ñoo ngi fi ak nga xamante mooy Baye Mandione Baye Mandione junior mi nga xamante ni moo bëri woon ak nga xamante mooy Ndiaye Tine kon gis nañ digganteem ak Ndiaye Tine ni ñu def stade bi gis nañu euh, bërëb bu bi ñu fa bëree ma bàyyi ak mu nuyoo mais nag du ñàkk nag làmb ji moom faw ñu dugg ci parce que ni ni combat bi ni coow lu demee seen diggante ñoom ñaar étape par étape faw ñu dugg ci bàyyi ñoon nuyu naa la maa ngi lay fay Ousseyn di wax ala ons bi taamaati kulluhu min sharri ma xalaxa di nuyu site bi ma seet si muy wasaare làmb waaw di leen wax ni yéen a ngi caare waaw ak Major TV yee eh. ak Nouveau TV tamit <laughs> xam nga waaw di xam nga waaw la nuyu di la wax ni yaa ngi caare mais ñu gis euh, sa dañoo sotti bi ci jugee ba léegi ngeen di gaatu la làmb jooju na faw ñu ñëw ci ndax keroog da ñëw sa digganteek Ndiaye Tine combat bi nekkoon combat bu métti dañoo dem ba ci gis bàyyi ma ñëwoon xaw a kii xaw ma daal lu mu demee noonu. ay ndog ay ndog moo la fi indi wala ay combat. am na ñàkk ñu wax ci oto bi moom lu mu fees fees fees nuyu ma sama yaay xet na ci. ma ne ndog la fi la neexee léegi ñëw ci làmb ji. waaw làmb noonu la rek noonu la mënoon a demee. waaw ndax dañoo tegle woon dynamique de victoire. doon daan ay nit ñi ñibbi seen kër muy metti te bu ñu daanee sant yàlla rek te xam ne jour yàlla moo ñu xañ ndax combat bi moom laa gën a entraîné samay combat moom laa ñàkk ma koy sant yàlla bu baax a baax a ndax xam nga euh, li naan looy dem dem xam nga te xamoo foo jëm ba faaw nga am échec boo xamante ni dina la dellu si waat ba nga mën a defarwaat pour mën a ñëwaat maa ngi sant yàlla bu baax baax di gërëm jaaytin xam nga jour boobu yàlla la àndal. nee nañu ko Ndiaye dañ dala tegal lu metti moo tax nga wax delloo nga nga a xaw a boycotté daal kenn xamul nu mu demee parce que bàyyi ma ñoon dañ doon gis muy attaqué di xeex mais ñu dem ba ci biir mu attaqué benn ñaar yoon téye li ma daawul def laa si làmb jooju man ma daan taxaw dama daan taxaw lu bëri xaar mais dama attaqué. mais Ndiaye dañ ne bi nga attaqué est nekkul la nga ko fekk moo tax nga taxaw téye sa bopp. non war a war daanu la rek mais daf def làmb de daane naa nit lu ne keroog dama attaqué ñàkk xaar naa tamit am ndam ba taay keroog ah. Ndiaye def na li man def man def naa li man yëpp ah. action yi nga xamante ni sax si laa waroon daanoo daanoo ma ci man maa maa bàyyi sama bëri doon def leneen yàlla ànd ceeg moom ma koy sant yàlla baax a baax a baax a baax di nga ñaanal ndam li jikko ndax daan na ma jël bu rëy loo xam ne musuma kaa foog sama àdduna moom moo ma ko def. waaw waaw mais noonu la mënoon a demee koy sant yàlla bu baax a baax di ko encouragé di nga wax ndam li yàlla na ko jik loolu daal la am ci lu may wax. Ah, boobaag léegi nga jóge ci defet nga toog di lan moo tax combat taxawul ba léegi. waaw combat xam nga promoteur yi moom bëgg nañ sama combat mais des fois mbëri ñuy seet duñ bëgg a bëri ak làmb moo demee noonu mais man maa ngi sama entraînement di waajal rek na man musuma ane balance na man musuma ane balance su ma jugee caare dañuy jug am nañu yaakaar daal nañ bëre fan yu néew waaw ñu fay bor bi nga xamante ne moom na ñu amal waa caare yàlla mooy ñu si ndam si kattanu yàlla. ñu gis bàyyi ma ñoon naka nga gisee combat waaw Baye Mandione moom démb doon na def ndogu mais moom chaque jour day joxe ndogu chaque jour xëy dem démb lañ oo rek ñu ñëw affaire yooyu noonu mais moom loolu loolu maninam la daal waaw di ko ñaanal combat mi mu jëm moog Zarko le 15 mai yàlla may ndam Baye Mandione jële bu rëy ci kaw Zarko. dina yomb. Lamb Lamb Baye Mandione du yomb Baye Mandione bu doon bëree yaaw jaa sax du yomb. laa wax. ni baa Zarko laa lay wax nii nga naan ay yomb <laughs> nga ba mu fa maa ngi koy ñaanal yàlla may ko rek. Hmm. loo si diggante. Euh, Coly waaw Coly am na combat na loolu combat capital la. combat capital la maa ngi koy ñaanal Coly yàlla may ko lu rëy si kaw Ada Fass waaw di nga wax nag xam nga li ma koy wax sax du ma la wax si média moom xam na bu baax fi ma féetee moom soo waaye la. sama waay boo ko nee nekk six mois maak moom. jabar nekk six mois. jabar moo ñu xaw a tàggaale xam nga benn benn moom daa teel a xam nga am jabar quoi kon moo nekk ci affaire yam xam nga. mais maa ngi ñaanal daal yàlla may nga ndam. Hmm. maa ngi lay fay Ousseyn. yéen bëggoon ngeen sama combat mais waxaatoo leen ma lu leer. Hmm. maa bëgg nga xam lu leer fii gaaw. non Ami dina la wax lu leer. waaye man laa bëgg nga xam lu leer yaw Ami laa Ami. Ami <laughs> nga leb sa loxo ah kon dee na ne yaa nga yàq ba pare nag may oo Ouzin jëlul